ku lu liggéey ba am lu muy jox njabootam ku wérul du jaamu yàlla kon nit ki boo ko dimbalee ba mu wér di jaamu yàlla def naa di ci tuyaaba asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñuy suivre seen seen sama xalaat ñu ngi leen di nuyu di leen euh, ziar baax di leen fàttali yéen ngi seen euh, programme plante de la semaine wala arbre de la semaine comme ni ñu koy wax rek voilà parce que plante yi mooy gàncax gu sew sewaan gi mhm. ak yu yamamaay garab yu yamamaay euh, yu voilà te comme lépp lañ ciy dugal léegi-léeg ñu waxtaane garab bu mag léegi-léeg garab ndaw léeg ñax mhm. voilà ñax yi ñax yi war nañ ci dinañ ci ñëw waaw dinañ ci ñëw sax ñax yi dañ leen di sóote mhm, waaw effectivement waaw yu am solo yii mhm. ñax yi ëpp solo sax léegi waaw waaw <laughs> jamono ji ñax ya dàq faj garab yi ah, baax na <laughs> dinañ dinañ def plant yi dinañ gën a dem ci côté ñax yi yi law ci suuf yi waaw surtout waaw incha allah professeur na tey euh, euh, garabu xoos nga ñu indil ñu bëggoon xam garabu xoos ginnaaw nag bañ la nuyoo tam di la ziar di nuyu tam ñi nuyu tam ñi ñuy seetaan mm-hmm. di leen ziar baax a baax a baax garabu xoos euh, lan mooy ay njëriñam ci wàllum wér-gu-yaram ak euh, man su ma ko bëggee utiliser nan laa ko war a mën a utiliser voilà euh, salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Pape maa ngi lay nuyu di la ziare di nuyu mm-hmm. sunu mbokk internet yëpp yi nga xamante ni ñu ngi ñuy siiwal ci sama xalaat TV mm-hmm. waaw comme ni nga ko waxee rek sànq ci garab yi ndaw yi nga xamante ñooy law Euh, defe naa ni ci jamono ji sax. ci d'après les recherches. garab yooyu ñoo dàq faj presque. mooy yu ñax yi. mais boo gisee nag euh, parfois ma la koy wax. waaw naan yi tax garab yi xaw a cher. Euh, ma ko jaayee trente mille ni ñi naan dafa cher ak yooyu. maanaam ci bëri ñax lay nekk. garab bu ñax pour nga am ci quantité dafa dafa métti dafa doy waar. xam nga tey bu doon yenn garab yi. lu mel ni guy wala exemple lu mel ni ngeer. kooku pour am ci garab. Mhm. xob lu bari du di jafe. dëgg la wala niim. wala niim <laughs> waaw kay genre garab yooyu. yooyu nga am seeni garab. dëgg la du jafe. Mhm. mais ñax moom. Mhm. non seulement lu mu bari bari. nga am ci quantité problème la. day difficile day difficile mais buñ nawet bi paasee sax faral boobu moytuwul loo ci denc woon doo ko gisati. donc mu nekkaat un autre problème. moo tax nag yi ñuy liggéey ci bëri yooyu la te yooyu day xaw a jafe tuuti. donc moo tax loolu la rek mais du leneen. bu ko defee pap garab la gu baax a baax gu bëri njëriñ mm-hmm, mm-hmm. donc euh, baax na ci yaram buy tàng mm-hmm. euh, xob yi boo ko amee baax na ci yaram buy tàng baax na ci ñi nga xam ne xëy na am nañ hypertension muy tension bi nga xam ne day yéeg mën na ko traité ci wàllu intestin yi ñi nga xamante ni dañ am problème butit ak biir beeg estomac ak yu demee noonu tamit baax na ci ci wàllu constipation. di mm-hmm. serré aussi. Mm-hmm. boo koy jël aussi di ko def infusion mooy xob bi. Mm-hmm. baax na ci. waaw bu tri euh, trouble maanaam lépp loo xam ne biir bi dafa am ay problème moo boo lekkee du rees ak. biir bi di jooy ak yu demee noonu tamit bu amee euh, xoos. Euh, xob yi baax na ci xob yi xoos. moom it baax na ci li ñuy wax la dysenterie amibienne. muy biiru tañ ñi nga xam dañu amee biiru tañ ñi tamit bu ñu amee xob yi. Mhm. di ko jël di ko utiliser baax na ci. Mhm. lu mel ni rhumatisme. Mhm. muy tànk yu métteeg yu demee noonu. Oh, xobi xoos baax na ci. feebar yàq. yàq ak yu ah, demee noonu waa kay. lu mel ni paludisme. muy siburu. aussi xoos baax na ci. malaria waaw. lu mel ni ay règles yi nga xamante ni du ñu règle ay règles douloureuses lañ. règles yuy metti Mm-hmm. maanaam ko xam ne booy gis mbaax muy metti mm-hmm. wala ay perte blanche mm-hmm. wala yu demee noonu feebaru jigéen yooyu yu bëri baax na ci xobi xoos baax na ci xoos les troubles ñi nga xam ne xëy na dañu am problème xel aussi buñ ci am di ci naan aussi baax na ci yàlla mën na leen defaral saafara ñi nga xam ne dañuy amee épilepsie di daal ay kii crise ak yu demee noonu tamit euh, xobu xoos baax na ci ñi nga xam ne ñoo amee tamit euh, genre kii pays hmm. moom it ku ci fièvre moom it baax na ci bu baax a baax hmm. ci wàllu seere waxoon nañ ko sànq ak dysentérie genre biir yooyu yooyu yëpp moom it xob yi baax na ci hmm. donc bu ko xob yi moom da koy infusé <coughs> soo mënee naan benn kaas la matin benn kaas le soir baax na <coughs> kaasu ndekki d'accord benn kaas matin benn kaas soir baax na ci kaas bu dee ci wàllu xas bi waaw muy écorce bi mhm. moom it boo ko jëlee baxal ko mhm. def ko décoction di ko naan mhm. kaas suba kaas ngoon baax na ci ñi nga xamante ni daf ñu am euh, kii nu mu euh, tànk yu néew yi di ñu wax œdème des jambes waaw nga xam ne tànk yi day néew yi euh, suñu amee xas bi baxal ko di ko naan baax na ci bu ñu amee xas bi tamit dëbb ko def ko sunguf sunguf woowu nga di ko def ci ay góom wala ay picc moom it baax na ci bu fekkee tamit perte blanche yu ñu doon wax muy mhm. ku jigéen su amee xas bi def ko sunguf exemple mhm. wala mu koy baxal noonu di ko naan mhm. tamit baax na ci ay perte blanche ak ay règle yoo xamante ni du règle normale donc mais nag euh, mën nañ ni euh, xoos euh, garabu jigéen la exemple garabu jigéen mooy lépp loo xamante ni ci awra jigéen la baax na ci jigéen ñi dañuy am problème yooyu mooy règle soo mën a joxe ay quelques exemples. waaw mooy règle douloureuse ak mhm. perte blanche ak mhm. infection mhm. yooyu yëpp genre yooyu moom baax na ci donc bu dee perte blanche bi da nga ci am ñaari quantité da ngay jël benn bi di ko naan comme ni ko waxee benn bi nga di ko raxasoo maanaam di ko raxasee sa kanam baax na ci baax na ci perte blanche baax na ci infection donc bu ko defee yooyu yëpp xoos xoos baax na ci d'accord xoos garabu xoos ah, <laughs> waaw <laughs> bëri bëri na njëriñ Mmh. d'accord léegi bëgg nañ xam xoos boobu ndax euh, ndax fii am na fi am na fi. Ah, am na fi ci àll bi. bari na mais nag euh, léegi sunu garab yu bëree bëreetul. waaw <laughs> waaw garab yi moom. waaw donc ay côté. waaw Saalum Saalum yooyu day gën a am ay Casamance yooyu waaw. Mmh. bariwul fii dee ci àll sunu àll Kajoor bi moom fi moom. ah d'accord waaw Sénégal na fi. waaw Sénégal waaw Sénégal bari am na fi quoi. même boo demee ci jaaykat yi sax da am na fi. Mm-hmm. mel ne côté Casamance yeeg Saloum yi. Kajoor ak Njàmbur kay yaakaar ay kàdd ak waaw yooyu rek a fi des léegi. waaw léegi nag boo defee gis nga. Mm-hmm. te yooyu tamit day tax na garab yi gën a di manqué waat. Mm-hmm. donc gis nga loolu tamit indi la ñu suñu suñu problème daal. donc loolu daal dañoo desee fonk garab yi waaw dañoo desee fonk garab loolu tamit war nañ ci mën a taxaw bu baax daal. di def ay reboisement ak yu demee noonu. donc pour àll bi àll bi ñëwaat wala parce que tamit ci ci gàncax gi lañ mën a fajoo de. dañuy fajoo. waaw pour ñu xam loolu. waaw dëgg la loolu mhm. la programme reboisement boo xam ni bu bu bu sérieux quoi. moo xamul sérieux waa kay. mais da ngay gis des fois gars yi lancé benn programme ñu wane gouverneur wala ministre wala dara ñu dem ci kii bi su ko ministre bi wala gouverneur bi mooy wax semence bi kasal boppam kàmb gi jël garab symbolique dugal jël ndox mi sottil boppam suul nangam nangam. Mhm. kenn ku ne jëmbat sa garab ñu jëmbat jëmbat jëmbat mais bu ñu fa jógee. Mhm. pare nañ ci e pare nañ ci. du am garab yooyu ñoom ku leen di topp toobañ maa du am suivi du am suivi. voilà wala di ñuy defal ay e garab yoo xam ni. Eh. Eh, peut-être du du garab yi ñu waroon a def daal. parce que man yaakaar naa suñu dëkk dañoo waroon privilégier ay garabu. ay garab waaw fruits surtout waaw. voilà garabu fruits ak ay. plante yu médicinal yu yu am doole. effectivement bañ a rek tu am na c'est garab yëpp a baax na. garab goo gis parce que yàlla amul garab gu fi saxal ko ko fi baaxoon. waaye dafa am garab yi nekk priorité ci ay dëkk. Mhm. ak yu nekk priorité feneen ci benn feneen waaw. voilà ñun mhm. fii ay filaawoo yooyu du suñu priorité. Mm, effectivement dañu yooyu la gars yi di gën a. kii waaw yooyu moom pour géej gi la. voilà peut-être tefes gi bu ñu toppoon bu dee tali gars yi ay niim lañ fi daan def. Mm. mujj gars yi naan day créer ay day tax accident ba amee nit ñi di dee. benn benn niim yi mag yi fi def ma yàgg nañ fi. Uh-huh. boo gisee pour tali léegi ni jëmbat gu bees li pour nga gis ko ci problème la. jàmm effectivement waaw parce que oto yi saaraan yoo xam ni bu doon garab newu fa. waaw dañuy fërërëri jàll ba taxaw quoi. mais garab gaa tax ñu ñu si nekk ñu <laughs> dal ci. <laughs> waaw loolu tamit neexul weddi daal tamit <laughs> maa ngi gisoon ci ci net bi femme benn femme boo xam ne Irène Kirozène xam nga nu mu tuddati noonu maa ngi doon suivre un jour. moom day wax ci affaire plante ak faj ak yu kii la euh, médecine traditionnelle lay def ak yooyu. Mhm. mais après def naa lim mu expliqué daal su ma juumoon benn waay moo ko financé benn milliardaire ubbi yu demee noonu Maroc defe naa la wax. Mhm. mu jënd fa ma ñaata hectare mhm. def ko ay plante te kooku da ko defar rek fi sabilillah c'est-à-dire que li ma bëgg a wax mooy yu mel noonu. Mhm. moo tax nit ñi nit ñi mën a amaat. Euh, garab yi mën a ñëwaat. c'est-à-dire que après reboisement yi chaque année mu am. mais du am suivi. li ci mën a tane nga gis ay borom tool wala yu demee noonu sax. nga jox leen ñoom ñu mën koo suivre toppatoo ko ak ci ah, biir tool yeeg yu demee noonu bu ko defee loolu dina am suivi quoi garab mm-hmm, mm-hmm. màgg ak yu demee noonu mm-hmm. bi ci des mooy li wax Pape les plantes il y a ce qu'on appelle les plantes médicinales mooy ko sàggane na am na espèce yoo xam ni kenn doo ko dootoo fi dégg oh. wala du fi am wala bari wu fi dañuy dagg rek waaw li ñuy daggee garab ñun baaxul ren bi ñuy jéem a buddi wala yu bu ko defee nag day dem ba nga xamante ni day indiwaat yeneen conséquence sax bokkut ak ñàkk garab rek mais dina indi sax bekkoor mhm, mhm, waaw mhm, parce que mu ngi noonu donc ah que léegi-léegi yàlla di taw nee nañ dama koy dégg ci borom xam-xam ñu koy wax léegi yàlla di taw am réew ñu xam nga léegi-léegi am na benn émission boo ko doon dégg kii di wax fu ma laaj quoi mais ma xam ni peut-être ñàkk xamam la wax quoi vraiment comme bu ñu wax naan non voilà buy dëkk bu ñu fay def ay mori yàlla yu bëri yooyu day tax dëkk ba nawet bi mun na am doon xamante mu ne dëkk tubaab bi la moo tax ni kon ñu ngi doon naat naat te foofu la affaire yooyu ëpp. voilà xam nga comprendre par exemple tey. Mm-hmm. effectivement maanaam dëkk tubaab yi mën yàlla mën na mën nañuy nit ñi fa nekk mën nañu mooy yàlla su waa ngoon. Mm-hmm. nawet bi gën faa baax. baax waaw yàlla tawalul nit ñi. Mm-hmm. su fekkee par exemple tey euh, bàyyi may fa nekk. Mhm. ñoom dañoo soxla ndox moom. waaw yàlla mën nay taw pour ñoom kese. ak garab yi waaw. voilà comprendre tawatul mhm. mën na ñu a taw pour nit ñi. pour nit ñi mais taw pour garab bu fekkee ñoom jëmbal nañ garab yu bari. bari waaw effectivement am nañ ay rab yu bari. Mhm. ba pare ñu fonk rab yi leen toppatoo. yàlla di tawal rab yeeg garab yi ñoom nit ñi bàkkaar ñu ciy profité. profité <laughs> waaw exploité. voilà léegi nag bu dee dëkk boo xam ne comme dëkk yu dëkk jullit la comme Sénégal. ñu bëri mooy yàlla bu fi am. comprendre nga ba pare di dagg suñuy garab di sonnal suñuy jur jàpp fas yi di dóor mbaam yi ay yet dañ leen di dóor xaj yi xaj bu la jubee bi nga sànni xeer muus bu la romb nga caw karawaas mhm. yàlla mën na ñëw mere mere goo na jël nekk di def lu dul noonu mhm. yàlla di taw taw bu bëri parce que boobaa mhm. mbindeefam yi nga xam ne dañoo soxla taw bi ñoom lay tawal tawalul nit tawalul nit waaw nit ñi dañ ciy bénéficier loolu ay sew sew la yoo xam ne ndaw la yoo xam ne waaw effectivement waaw voilà yàlla tawul pour nit ñi kese mhm, mhm. voilà day tawal ñëpp macha allah jërëjëf yàlla mhm. day tawal garab yi day tawal bàyyi bàyyi may day tawal insectes yi am na insectes yoo xam ni naaw euh, daaw bi nawet bi di jeex lañ nenoon seeni nen ci suuf ba fa di xaar taw dëwén bi pour nen yi génn bu toj nekk ay insectes effectivement léegi bu yàlla sotee année boobu taw seen nen yooyu du yàqu yàqu effectivement léegi yàlla mu ngi taw pour insectes yooyu te yow yëgoo ko. Mhm. insectes yi ñax mi génn ñoom ñu war a génn profité ci. xam nga yàlla science am daal la <laughs> nekkuñu fi nekkuñu fi waaw effectivement <laughs> <laughs> waaw effectivement ñun nekkuñu fi mhm. si garabu xoos am na mhm. solo xam naa am na loo xam ne nga ko waxte laaj ñu ko nga wax ko ñu ko fi oh, waaw comme toujours rek Pape li nga doon développé sànq rek sa veut dire que kon nañ pré euh, préserver àll bi surtout garab yi surtout espèces yi nga xam ne dafa manqué ñu commencé di ko di ko reboiser. surtout nga xamante ni léegi plante médicinale dina doy garab yi doy àll bi am garab. Mhm. loolu dina indi beneen développement. bien sûr su fekkente ni tamit nit ñi mënuñu ko ñu xool ñi nga xam ne am nañ tool yu demee noonu. Mhm. au moins ñu leen di may ay garab. ñu ko ñu ko fay ji wala yu demee noonu. Mhm, sax loolu mooy mooy tane. dëgg donc loolu daal laa ci xam ni moo ci. solution c'est très important waaw. mais nag sinon reboisement yi ñuy def ci école yi yeeg ci kii finalement. Hmm, du mujj fenn du dem fenn. ak am borom xaalis ñu ci bañ a xaar. waaw ñu bañ a xaar état état waaw. ku dëkk Thiès tey am xaalis. nga mhm. mën a dem ci àll bi foofu. Hmm. jël benn hectare jëmbat fa ay garabu. garab wala dara. waaw ba pare fay nit mu koy toppatoo. mu koy toppatoo waaw nga jaamu ci rek te yàlla tax. voilà bañ dëgër ba mën a demal seen bopp. Hmm. soo ko mënee def feneen di def feneen. feneen au moins boo mënul matale fépp yow am na def. foo def waaw. <laughs> c'est très mm-hmm. mm-hmm. def mairie bu si nekk zone bi nga kii nga jël ñaari nit ñu liggéey ci mairie bi nga leen di mm-hmm. ñoom seen liggéey nekk garab yi ñu ci quartier bi wala ci koñ bi. ñoom toppatoo garab yi donc la liggéey. xam nga ñooñu boobaa garab yi ñu dee dina koo mën a dem ne ko lu tax garab yi dee. Eh, mais bu dee de manière générale ko def. kenn du mën voilà loolu moom. non dañoo liggéeyul rek Pape mooy li ma wax xam naa du ma guddal dañuy koy toujours gaaree ci mbeer yi mhm. mu ko organisé woon. Mhm. dina mën a am benn parking boo xam ne ci mairie bi. ba ñetti ñeent wala bu juróom. Mhm. ay jeunes di fa gaaree di am xaalis. dëgg la léegi di jeunes yooyu dinañ liggéey. yow sa oto dina nekk en sécurité. mais nga gis quatre koy teg. teg pare bi. waaw ci trottoir bi mu fee fanaan surtout. donc léegi bu ko defee du am du am sécurité du am gardiennage mais mooy maire yi mënoon nañoo aw seet mhm. ay kër yoo xamante ni xëy na borom tabaxagu ko ay terrain nuy mhm. ñaari terrain wala ñett yoo xam ne borom ñu ranger def fa pour ñaari jeunes ñett ñoom ñu nekk foofu mhm. waa koñ boobu di fa gaare seen oto bu defee yow sa oto dina nekk sécurité jeunes yi dinañ am ci leneen ainsi de suite ainsi de suite rek dinañ liggéey moom idée la rek mais ñun daal ñu ngi noonu rek baax <laughs> ñu ngi noonu daal. yal nañu yàlla njiit yu baax. waaw kay te bëgg réew mi te mu te compétent. te compétent waaw c'est ça ñu mel ni yoon ci yàlla Youssouf. waaw alayhi salaam dañuy am njiit yu mel noonu. Mm-hmm. njiit yu jub maandu ba pare am compétence. waaw xalaat rek waaw ci barke yoon bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. jërëjëf.